Pape Sané nga ak Pape Mokhtar bu waxee ne la sortie de Macky Sall c'est presque une erreur quoi mënoon na ko ci bañ fekk en tant que ancien chef de l'État du Sénégal. moi je pense qu'il aurait mieux fait de se taire mu gënoon ci moom. waaw ah, mais nag bu doo doo toog nag ñu ne accusé li ko Ousmane Sonko accusé dafa garaaw moom mu toog ne di noppi di du wax dara. da nga falsifier les cotes du Sénégal lépp nga mille nangam milliards kenn xamul foo ko dugal déclaré woo ko six cent et quelques milliards monsieur le ministre wax na ko léegi yu ñu waroon a dépenser en 2024 ñu ne Macky Sall lekk na ko en 2023 ngeen ne Macky Sall du wax te Macky Sall ne ci àdduna bi di di dox kon nag danaa tontu ba sonn donte benn économiste Moustapha dafa wax lu am solo eh eh. mu ne ma ñun suñu chance eh. Sénégal euh, mooy que 2024 bi qu'il y ait un changement de pouvoir parce que soo xoolee légiku Macky Sall et c'est un économiste un très bon économiste mu ne ma depuis 2019 la Macky Sall commencé déstructurer l'économie sénégalaise. absolument mu ne ma gis nga bu doon on avait une économie structurée waxtu bii ñuy wax nii nii nii nii nii. fonctionnaire du fayeeku c'est-à-dire dara du dox ci dëkk bi mu ne la fait que mu destructurer ko sax moo tax dégâts yi mënaguñ ko mesurer à leur à leur juste valeur. Moussa comment nga mën a imaginer dans un pays moo tax bu ñuy wax ay waxu mille huit cent wala six cent milliards kii yu yu réer mais forcément il faut que les gens y croient. Parce... forcément non forcément fii lañu gis ay de mission de la de Macky Sall président de la République signé ko à un homme d'affaires pour mu génne or yóbbu ko de Dakar Paris à Dubaï or boobu musul egg Dubaï Zimbabwe la dem. kon li Ousmane Sonko di wax ci or bi noonu dëgg la. non Zimbabwe la dem demul Dubaï. <laughs> alors que ordre de mission de la présidence dafa leer nañ Macky Sall moo ko bind signé ko ne ko jëlal ma or bi fii Dakar yóbbul dem Paris. yóbbu jógee ko Paris yóbbu ko eh, Dubaï demul Dubaï dem dem dem Zimbabwe mais quand un président de la République ou bien un gouvernement mën a def genre bases yu nu mel ñi naan la et gouvernement boobu. lépp na des fonds publics au non de tous les Sénégalais que nous nii jël ko dugal ko ci benn structure bancaire privée versé ko ci compte Ablaye Mbow ñu ne la pendant cinq ans gouvernement bi def na loolu ba service de la dette du yéeg xamul sax service de la dette du yéeg ni que état du Sénégal leb na xaalis hmm. au nom du Sénégal mais Moussa bu ñu la ne cinq cent milliards wala mille huit cent milliards réer na wax fa dëgg yàlla on est on est on est on est obligé de le pour moo tax avec tout ça Pape Sané yaakaar nga ne Macky Sall dina jël risque ñëw ci réew mi ak li nga wax nii yëpp. bon xam nga nag yàgg naa leen wax fii ne que Macky Sall n'est pas suicidaire. je ne pense pas. il n'est pas yi laa leen waxoon fii mën na leen dana tollu jamono ñii ko doon jàppale ñëpp dana ku ñëw taxaw ñëw weddi leen. dem yoonam dem yoonam. il l'a fait. c'est le bonhomme c'est le bonhomme qui est il n'est pas suicidaire ñëw bii ñuy wax nii peut-être que laa wax peut-être laa wax peut-être dana jël jet privé am ñëw wàcc fii une heure deux heures de temps gars yi wuuxu ko gis ko mu jëlaat avion am dem juste parce que il a la garantie kenn du ko jàpp mais Macky la ñëw fii ne day campagne parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas la contradiction boo ko yuuxoo fii aéroport sax ci aéroport lay dugaat avion am delluwaat donc loolu accepte mais en tout cas Moussa li ñuy wax nii nii nii nii nii nii sur l' économie de ce pays là. wax naa ko fii keroog bi ñuy wax rapidement s'il te plaît Pape. suñ ma toogoon su ma toogoon ñu ne ma yaa vingt mille milliards bi nga xam ne mënuñu ko quantifier mënuñu xam fu mu dugg du ma bett waaw ah, du ma bett et cette histoire de l'or là c' est là où j' interpelle le ministre parce que tamit il faut que seen gouvernement bi tamit côté boobu ngeen gën ci gën ci exigeant gën a wax ak sénégalais yi. xanaa nag jàmm pourcentage. ah or bi. Ah, waaw chaque jour tudd ko. waaw non bu ñëwee dama ci am pourcentage. <laughs> Ah. ah Ablaye. ah dëgg dëgg. ah bu ñu piste piste ba xam nga or bi nekk. bu ñu andi or bi nag wax fa dëgg yàlla war nañu jox dara. Pape du sonnee war naa jot. Ah. war naa jot de. ah oui bu ma jotee kay nga jot. waaw wax dëgg yàlla. non non war ngeen fexe nag or boobu mais Moussa man kay su ma ci mënoon dara nga jot. non on parle. dama ci mënul dara. non on parle. de cent et poussière je crois milliards de francs CFA d'or bu génn Sénégal. du ay caaxaan. du ay caaxaan Moustapha man buñ ma ci joxe sax un milliard ma jël. pourtant dañ dul déglu mais plusieurs fois fii dans l' émission Pencoo la Mame Birame Wathie alerté na fi plusieurs fois. ci or bu jële jëlee Kédougou di ko def ci avion di yóbbu. mais à l' époque euh, on ne prenait pas mais mais maintenant que que que nous qu'on nous présente tout ça. tu te dis man lu ma jaaxal man man damaa gësugul. mais Moustapha man maa gësugul Pape Sané jigéenu Sénégal bu takk seenu or. ñu ne li or sabu dollar la. et puis le 24 bi sa 24 24 mooy c' est le or bi nga xam ne moom la ñuy garantir ci banques yi. absolument c' est suñu bos bi. moom la eh, banques yi banque yu mag yi moom la ñuy jël moom la ñuy jël comme garantie. gars yi jël ko di yomb. mais ñun amuñu ko. Pape sur la réponse de Macky Sall très rapidement ñu terminer ak monsieur le ministre. wax dëgg yàlla je ne lui pas cette frivolité politique euh, bi mu tontoo quoi vu son parcours vu son expérience ak exploit yi mu def yëpp sur le plan là je pense que il a raté une très belle occasion de se taire parce que en fait euh, au-delà de la guerre des chiffres hein, parce que chaque alternance ou alternative mu am mhm. mais euh, benn économiste nee na l'économie réelle c'est la poche et le ventre tout le reste nekk que littérature économique Macky Sall il a laissé des poches et des ventres vides mhm. Sénégal ñu placé ko vingt-cinquième pays plus pauvre mhm. nga gis jeunesse bi engagé euh, xeex ak moom pour ko fi voilà donc li wax na ko ñu bëri wax xam nga da ngay foog ni yi sax yitteelu leen mais xam nga lan lañ xam xam ne wax beeg xeex beeg du mujj fenn moom li mu bëgg loolu lay def kon l' objectif premier mooy nga jëlee ko fi et je pense que ni loolu Sénégalais yi réussir nañ ko donc kon euh, euh, dette bi mu fi bàyyi wala na wax chiffres yi les grave lañ ko jël au moins moom ay chiffres am. Hmm. ñaata la fi fekk ci dette 3000. yóbbu na ko moom ci lu mu nangul boppam minimum minimum. 13000 waaw léegi loolu rek loolu rek du catastrophe. waaw mais nee na fi mu ko def su ngeen ñëwee Dakar gis ko ah. waaw mais ñu ñu ngi fii ci Sénégal. Sénégal lañ nekk de waxuñ bul ñëwee Dakar nag Sénégal. lan la def Louga man de romb ma dara la Pa ma daal gisul dara Saint-Louis. ñun moom 12 ans Macky Sall ñoo ci a dee. waa Fouta boo demee ñu wax la la même chose. <laughs> Casamance boo demee ñu wax la la même chose. kon li ñu leb fan la ñu jaar dañoo endetté te gisuñu dara wala lan euh, am na ñuy jóge jam ñaajo di ñëw dakaar ci berte loolu <laughs> quand même. tout à sachant xam lu muy wax sax boo ñëwee Dakar gis ko gis nañ ko mooy ñii di yalwaan ci bopp koñ yi mooy ndox yi déversé mooy inondation bu tawee euh, tali yu bon ñu ngi koy. gis nga gis nga Moustapha le débat mais gis TER aussi ak BRT. ah oh, ñu ngi gis yee euh, xam nga xam nga Moustapha. Euh, tey tey jii nii je pense que ni. échéance politique yi peut-être dara la ci du mu mën a dina ñëw nag mais quand même dina jéem a de tout son poids pour def ñoom comme li ñuy wax genre damay gis opposants yi di ko wax man euh, le premier ministre Ousmane Sonko moom moo waxoon ne Macky Sall bu ko kenn jox majorité parce que mënoo di gouverner di contrôler. mais loolu ba léegi dañu dañu ci et c'est toujours cohérent président Diomaye kenn war koo jox majorité. ku ñu jox majorité alors. Ah. cette majorité ne doit pas être majorité de Diomaye député Diomaye warul am. loolu dafa war a xew député Pastef warul am majorité boo xamante ne bu réfléchi majorité bu posé. Mhm. am responsabilité li nga xamante ne sénégalais yi choisir nañ ko comme projet de société. ñu accompagner loolu noonu. majorité cap une majorité boo xam dina am capacité wala dina am. maanaam bëggatuñu su jomaay ñu ne ko jàdd. merci exactement loolu dañ koo gis Guy Marius Sagna dañ ko fi def. ci ci six mois yi nii gis Amadou Ba son passage bref euh, à l' assemblée nationale. vraiment il a marqué que lii du député wu parti bi. ay député wu Sénégal la te loolu noonu je pense. c'est pas pour rien qu'on dit que le mandat du député exactement donc kon laajuñu député Diomaye. très bien ñu jeexal euh, émission bi wax d'abord euh, sur euh, li ñu fi wax ñoom.